constitution bu Sénégal dafay tere njiitu réew mi mu daal di battre campagne ci wetu kii di Ba jamono boo xam ne rek ay rumeur mu ngi jóg di xam ne ne gannaaw ba mu rek dëggalee ni kii di Amadou Ba mooy candidat am te moom lay jàppale ci élection yi ba noppi sax di woo bépp responsable bu nekk ci coalition benn Bokk Yaakaar nga daal di def sa kéem kattan nag lépp loo mën ngir rek kii di seenu candidat di Amadou Ba daal di gagné élection ñu dëgmal ba nuy wax sax ne moom mi di njiitu réew mi Macky Sall nag décidé na dina wàcc teenam ca meeting boo xam ne. am nañ yéene amal ko niki 21 mars bi ñu dëgmal ngir nag daal di rek indil ki nga xam ne moo di Amadou Ba ñi di élection présidentielle 24 mars 2024. moom Ndiaga Sylla di ab expert électoral du ñu xam ne rek bu ñu sukkandikoo ci conseil constitutionnel ak décision bu mu fi jëloon ñeer mbiri eh, ci jamono yi eh, kii di président Abdoulaye Wade la mu xam ne rek moo di président boo xam ne rek bu nekkul candidat ci élection di compétition électorale bu ñu dëgmal ay attribution am kenn wala sax ay euh, image am kenn waru ko daal di rek euh, utiliser ci benn candidat nag loole bu ñu sukkandiku rek ci li nga xam ne moo di tolluwaay goo xam ne candidat yi parti politique yi wala coalition de parti yi euh, dana ko war a am rek ci compétition bi ki nga xam ne moo fi njiitu réew moom dañuy tere rek li nga xam ne mooy ay atribution am wala image ñu daal di ko utiliser ngir daal di ko battre campagne moom Ndiaga Sylla nag du ñu xam ne ne kon bu ñu sukkandikoo rek Euh, ci décision boobee nga xam ne conseil constitutionnel jëloon na ko fi ay jamono moom mi fi nekk jamono ji leen njiitu di président Macky Sall te nekkul candidat ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal dontale sax tànn naa ko candidat bu muy indil njàppandalam muy kii di Amadou Ba nekk candidat wu mouvement présidentiel coalition benn Bokk Yaakaar euh, dafa mel ni rek kon constitution bu Sénégal daf koy tere moom njiitu réew président Sall mu daal di wàcc terrain bi participer activement ci li nga xam ne moo di campagne bi ndax xëtt li nga xam ne moom la sunu constitution wax jëmee ci candidat yi ak tollale goo xam ne war nañu leen ko tollale ca na nga xam ne rek noonu la ñu leen war a daal di rek traité ci campagne électorale bi nga xam ne moom la ñu nekk mooy compétition électorale boo xam ne bépp candidat rek mu nga daw wutali askanu ko Sénégal ngir nag di ko ay kàddum la nga xam ne rek mu di yéenam ci réew mi bu nu ko ko dénkee ci at yi nga xam ne moom la ñu dëgmal loolee rek kon war a jeex niki le 22 mars bi nga xam ne moom la ñu dëgmal ajuma joojee loole nag di campagne bi di jeex dimanche 24 mars askanuk Sénégal wutali urne ya ngir rek tabbu anakan moo leen war a jiite ci juróomi at yi nga xam ne moom la ñu dëgmal gannaaw ba mandaam jeex yi moom jiitu la Macky Sall ni ki 2 avril bi ñu dëgmal jërë ngeen jëf mbokk